combat bu njëkk bi mu yàqu. Thank you.

waaw mbokk yi ñoo ngi ci grand combat bi ndeysaan Bakel Sène moom la ñu tudde bi fii monsieur le maire de la commune de Malicounda wàcc na def na discours am fotowu na ak bërieg drapeau bi léegi rowa dem na kën waxi mag dem na ndañ kàllu bàgg war na mbaam nan tay léegi mu lamb arbitre bi seet ñaari mbër yi ku ci nekk ñëlëb nga nañ ñaari mbëri képp rek ñoo ci des muy diggante ak Pakala Malick arbitre bi laaj na ay juge ndax pare nañ ñëpp ñaari mbëri pare nañ arbitre sifflé na Jules dox na ñaari mbëri yaa ngi lay waaw Jules Saly moo ngeen moo ngeen mu weex li Pakala bu Malick moo ñu woon kanam ñaari mbër yi si la ñu dox ci kawam wax nga dëgg beneen daama la am doon suuf dafay wàññi distance bi dox ci kawam Pakala bu loxo bi jóg si mbéy jaawal ak moom tàpp ko loolu lay wut waaw ndeysaan l'histoire retiendra ce jour-là le 22 janvier fii ci Mbaling première édition drapeau ndeysaan Maguette Sène maire de la commune de Malicounda waaye ndeysaan di directeur Kound moom la ñu jagleel bis bi ñoo ñu di jaxate le promoteur de la du rail mbokk yi stade baa ngi ne teg foo sànni mbaatu mu teg ndax noonu. dañu ko tuddee combat spécial bi tuddee ko combat grand combat bi waaye si door na léegi si door na léegi da ngay jokkaas mais xam nga si mbir mi mag la fi mu ne wut pour dem waaye Pakala nee na ko sama dëkk nga ma fekk damay jël combat bi jël sama taw arbitre bàyyi leen ni bëre waay jëluñu saako jëgewuñu saako waaw arbitre bi. dafa arrêté woon combat bi di leen xëcc waaye jaru ko woon parce que ñu ngi ci digg géew bi mbokk yi bu Saly moo ngi moo ngi mu weex li Pakala bu woon kanam ngemboo ngemb lu bule li mbokk yi Jules moo ngi lu bule li Jules bu Saly moo féete seen ndeyjoor Pakala féete seen càmmoñ ñaari mbër yaa ngi leewaatee ñaari mbër yi ci diggante Silmi Sali waaw dafa mel ne combat ci jaawale moom jël na ko ko waaw waxoon na la ko wut mbër mi mag la dafa bëgg pagala loxo bi jóg mu jaawale loolu laa la wax tey Ndéla Sine li mu bëgg mooy Pakala yëkkati loo xam mu jaawaloo moom jël ko Jules bu sori daan na Pakala bu mbaale yi waaw daa xëy na laa hey Jules bu sori fii si waat na dafa rapide zil dafa gaaw zil bu sori daan na pakala bu mbanin waaye mbokk yi mbokk yi combat baa ngi noonu li moo amoon mbanin drapeau Maguette Sène ndeysaan grand combat bu doxoon ci diggante zil bu sori ak pakala bu mbanin